te dañoo waxoon sénégalais yi ni bis bu ñu demee assemblée nationale dina am lu bari bari loo xam ni war nañ ko soppi ci dundunu askan bi il yà de projet de loi extrêmement important yoo xam ni ñu ngi ci liggéey te incha allahu rabbi sénégalais yi dinañ xam ni assemblée nationale ba woon ak bii du benn dinañu proposer benn projet de loi sur le code électoral ñëpp xam nañu tous problème problèmes qu'on actuellement nii à chaque fois élection am bu ñu paree di dóorante di dem conseil constitutionnel di wàcc mbedd mi di xeex c'est parce que on a pas un bon code électoral. et pourtant le code électoral bi nga xam ni moom la fi Abdou Diouf bàyyi woon ñu tuddee woon ko le code le code consensuel consensuel moo fi bàyyi moo fi indi euh, Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade jóge fi bàyyi le même code amélioré ko sax s'il le faut. Macky Sall ñëw lépp loo xam ne acquis la woon démocratique sur le plan électoral Abdou Diouf bàyyi ko fi woon Abdoulaye Wade bàyyi ko fi woon mu soppee ko complètement jël code électoral bi di ko taillé par rapport à à à à à et surtout par rapport a à à à sa situation euh, par rapport à la gestion du pays parce que bu ngeen ko seetloo lépp lu mu teg rek parce que xam na il a les renseignements généraux. xam na ni code boobu bu ko fi bàyyee ce sera ce sera la la la la ce sera ce sera ce sera catastrophe pour lui pourquoi il n'a pas voulu que Khalifa Sall euh, euh, euh bañ a nekk candidat en 2019 il a touché au code électoral pourquoi il n'a pas voulu que Karim Wade soit candidat à l'élection présidentielle en 2019 il a touché au code électoral avec son tailleur donc day xool rek par rapport ak situation bi rek par rapport ak contexte bi rek que ça l'arrange ou non rek mu ne naa laal code bi donc incha allah fas yéene ñu def ay proposition de loi pour changer le code électoral ñu am un code électoral consensuel boo xam ni sénégalais yëpp danañ ci seen bopp pour que ku gañeeti fii élection mu bañ am mu bañ am benn benn problème on nous donne l'exemple du Cap-Vert Cap Vert seen élection présidentielle yi jógee defe naa xaw ma dix voix ma ñaata la la la je raw ki gagné rawee le second. amul benn benn benn benn kàddu bu ñu yëkkati pour pour pour contester le vote la c'est parce que ils ont un code démocratique. donc foofu la ñu bëgg aussi avancer ak yéen dina am yeneen proposition de loi sur l'homosexualité waaw dinañu proposer une loi pour criminaliser l'homosexualité xam nga ñoom bu ñu yaakaaree ne Sénégal yi yeewuñu ñu ngi nax seen bopp xam nga ñoom dañu ne kenn du fi mës légaliser homosexualité ñoom loolu la ñuy wax ñu ne la question c'est pas la question mooy nañ ko criminaliser ñu on va aller au de là nañ ko criminaliser parce que bokkul ci suñuy valeur yarewuñu ko baaxul benn diine buggu ko muy diine lislaam muy muy muy muy muy diine muy diine catholique suñuy aada bëggu ko même le paganisme sax les païens suñu maam yi nga xam dañ daan jaamu ay jaan ak ay garab bëgguñu ko donc moo tax ñu ne dinañ def une proposition de loi pour que homosexualité jóge fi te bis bu ñu ko proposé parce que bu leen fàtte ni bureau bi 14 lañ ñoom am nañu 7 ñu am 7 plus le président sa voix compte bis bu ñu ko proposé ñu bañ yéen sénégalais yi boobaa ngeen arbitré ngeen wax ñu ñun qu'est-ce qu'on doit faire